mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme 5 TV ma ñëwaat ak yéen ci décortique bi ñu leen di defal série Mariama tey nag mu yemoog épisode 27 bi ñu door ko ak monsieur Ndiaye moom nag menacé na Nadège ngir rek mu bàyyi ki nga xam ni moo di Anna waaye nag monsieur Ndiaye moom ni nga xam ne la Nadège di waxee ak moom te Nadège nekk koo xam ni élève am la wane na ni rek nit boo amee respect ci sa bopp yow yaa ko may sa bopp waaye itam yow yaay yaay am fulla ak fayda euh, bi tax rek nit ñi delloo la ko euh, ndax tey ji Nadège bu ñemee taxaw ak monsieur Ndiaye di ko traité de tous les noms comportement monsieur Ndiaye ci moom moom moo ko waral ndax diggante professeur ak élève yaakaar na beneen bët moo ci waroon a am bu ñuy xoolante waaye nag bu wuteeg bi nga xam ni moom la monsieur Ndiaye ak Nadège di xoolante Nadège tey ji lépp loo xam ni rek monsieur Ndiaye wax na ko ko euh, safu ko te it nag lijjantiwu ko te lu ko neex lay wax professeur boo yematut si jàngale waaye nekk nag di kala ñaatu ci say euh, moroomu doom ci say élèves euh, boo ñàkkee fayda rek yow yaa ñàkkal sa bopp fayda ñu jàll ci proviseur moom nag convoqué nag ki nga xam ni moo di yaayu musaa ngir waxtaan ak moom ci problème mu Moussa muy loo xam ni nag jaaxal na leen ñoom ñëpp ndax musaa nekk na koo xam ni kenn xamu ko woon si yu ni mel ndax bu dee école nekk na élève bu baax boo xam ni rek école ba da koy sagoo waaye itam bu dee ci kër ga nekk na doom boo xam ni bëgg yaayam la nag parfois euh, nit ñi dañ euh, dañuy yàkkamti seen àdduna te olof Njaay nag day wax naan yàkkamti yàqule ndax jamono ji nga xam ni musaa rey na boppam rek ngir euh, fexe ba am nu mu demee Espagne fekkoon na proviseur da ko inscrire rek ci bourse étranger yi ngir bu amee bac mu daal di dem Europe jàngi mu mel ni kon quelque temps rek avant loolu ci la Moussa jëlee dogal daal di dem Espagne ci anam boo xam ni jaarul ci yoon mu mel ni kon nit sa wërsëg waroo koo fekk ji waaye a xaar mu fekk si la ndax Euh, te nag bu fekkee da ngaa yóotu loo xam ni euh, àggagul da nga ci sonn rek waaye doo ca euh, mosa a jot ñu jàll ci monsieur Obenga moom nag jàpp na ki nga xam ni mooy bras ki nga xam ni moo di concurrent wam ci affaire drogue bi waaye problème bi nag mooy kooku noonu nga xam ni mooy concurrent wam Khalidou day liggéey ak moom te monsieur Obenga tamit mooy chef ki nga xam ni moo di Khalidou mu mel ni nag kon loolu mën naa indil Khalidou problème ndax bis bi ko monsieur Obenga yëgee du ko neex ndax moom bëggul rek kenn génn di lëkkaloo ak ay ennemi wam ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni yoonu Espagne bi métti na torop ci Moussa ak ñi mu àndal ndax si yoon bi euh, li ñu dox mu mën naa ni lu ñu dugg gaal te nag pour ñu lekk sax problème la euh, naan waxi noppi mu mel ni kon yoon bi nekk na yoon bu métti boo euh, xamante que nii ku ku nekk rek balaa nga ciy dem war nga xoolaat bu baax a baax mu mel ni tey Moussa bu xamoon ne lii lay daj du daal di jóge Dakar naan rek day dem Espagne ndax yoon bi fu waay natt métti waayam rek romb na ko ñu jàll ci duudu moom nag mënatul garder secret Moussa bi ba tax mu daal di koy wax yaayam ak proviseur mu xamal leen ni euh, Moussa dafa dem ci euh, gaal yi waaye ki nga xam ni moo di proviseur nag moom xamle na ni puisque bi ñu demee ak léegi yàggul dinañ leen mën a stoppé te nag euh, loolu sax du jafe ndax ñoom Moussa ku leen gis xam ni mënuñoo dox lu sori te dox nag lañ nekk di def ñu jàll ci Kalidou moom nag am na ay problème ndax xaalis bi nga xam ni moom la Mariama sàcc muy xaalis bu baree bari ba tax nag monsieur Cissé xamal na ko ni rek bii du ko mën a jàppale mu mel ni kon Kalidou ay problème mu ngi waaj a démarrer te lépp nag Mariama ak ki nga xam ni moo di Abibatu ñoo nekk ci euh, ginnaaw mu mel ni kon euh, kuy jaay euh, bandi rek lu ñu naan bandi mooy baayam te nag looy jaay rek bis boo dajeg sa doomu bàjjen mu daal di koy jënd loolu moom moo ko dal jamono jii ndax xawatul sax fu muy teg tànkam monsieur Cissé mi nga xam ni moom la yaakaaroon tey jii dafa rangé wu ci côté ki nga xam ni moo di Abibatu ak Mariama ñu jàll ci monsieur Ndiaye moom nag alkaati du bàyyi dóor loolu la ñu koy waxal saa su ne te moom lay doxee saa su ne euh, ndax ki nga xam ni moo di ànna euh, doyatul muy nekk moom këram waaye commencé na ko invité ci appartement yi waaye ki nga xam ni moo di aana moom mel na ni wute na ak Nadège mel na ni borom euh, xel la ndax mooy commencé rek di xalaat bu baax a baax ci ki nga xam ni moo di Monsieur Ndiaye mu mel ni am na leneen lu nekk ci boppam ñu jàll ci Mariama moom nag ñëw na ci proviseur bëgg koo jàppale ngir rek problème mu école bi di maanaam foncier wu école bi ndax euh, dañ leen bëgg a génnee te loolu gàcce la pour proviseur proviseur nak li tax mu am ku ko jàppale euh, xolam bu rafet ak euh, ni nga xam ni noonu lay doxalee ni mu doon yoree école bi moom moo ko ko may ndax tey jii nit boo nekkee ku dëggu kuy jubal yàlla du la seetaan mukk ngay torox mën ngaa jeng waaye doo daanu ndax une semaine rek moo desoon ngir rek ñu daal di nangu école bi te ku nekk xam na ni loolu gàcce la pour ku mu mënti doon waaye proviseur kon xolam problème mu nit ñi moo tax tey yàlla jàppale ko ba balaa une semaine boobu mu am li nga xam ni moom lay fayee ba kenn dootu ko génnee ci école am ñu jeexal ak monsieur Obenga moom nag gannaaw bi nga xamee ni éliminé na ay euh, ennemis di ay concurrent wam jël na doomam daal di koy teg ci bopp business bi fii ci Sénégal doom ji nag li ko jaaxal mooy lan moo tax jëlul kalidu dal di koy euh, bàyyi fii ci senegal ndax Kalidou moom la yàgg di liggéeyal waaye euh, monsieur Obenga nekk du amul ci moom confiance à cent pour cent mu mel ni kon euh, Kalidou euh, temps yi euh, mbir mi neexul ci moom ndax ñëpp rek dañoo acharné wu contre moom te bu mooy wul rek li koy yoot du yomb benn yoon kon bokkente no dinañu leen topp ba xam fu waneen di mujjee ki gëtëm waaye laata boobu nag wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte ba si cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très allah